bay daam fay bindkat bi bind way di war na la di fi way jàmbaar ju fi gotti góor ne mu màgg la bay daam fay bindkat bi bind way di war na la di fi way jàmbaar ju fi gotti góor ne mbër mu màgg la ku fi jëf ma way ku jëful ma noppey kenn jëndu ma ku fi jumba jàdd ma teg ci yoon ku baax ma bàkk la ay ca bàkk leen ay ca bàkk leen galañ bu leen ndëndam sama ndënd lii ki mu koy tëggal ku yàlla tànn la di jàmbaar ju man góor bokk ci askan mu ñëpp naw soqi ko tubaa tayit soppeb sëriñ bi la nga ne baaba kan la ñu naan la kii baay moo jaarale nga ne kooku kan na ma la kii sëñ Bass Ndiaye la nga ne kuy mbiram ma ne kii mbiram jàng di jàngale nga ne wax ma tuut ca wax ma tuut ca gaw ko tax tey ji mu gundi la sëñ Basiiru ci sa wàllu yaay ñëpp seer na alxuraanu seen yëfa li ñu jëf ci diina ji ragal yàlla li topp la ci sa wàllu baay sëtu maam maram ku sëf ci mbàkke nga ka demoon gabong di sa maam njaay sa may gu jombu la la fi woon di woon ni la woon ca ñoom jox nañ ko seenu ñañ ku ko sàkku am ko ku ko sànku sànko yi xase topp la fa sa maam yi xàll nga aw di wéy ba jot ca dëkk ba dawuloo dëppoo defuloo fi lu waral ñu jéppi la da nga teel a jàng ba fees dell géeju nga lu fi doomi soxna di xam nga xam ko lenn ump la ba sa njàng noppeekat mënoon ngaa faste say loxo bañ a def ci dëkk bi jàng waay ngir xam ne coono la da nga dékku coono yi ngir bañ ku réer a diina ji taxawal daara jële woote ñëpp dagg wuy si la ku la wuy si raw ku la wan gannaaw morom yi jiitu ko ay ci wuy si leen rawukaay gi fii la romb reccu la dañu jàng diine di jàng ëllëg jàngi àddina dañu jàng diine di jàng ëllëg jàngi àddina dara réeru leen xale yee mu yor ku gag ñu gàgg la dana jàng diine di jàng ëllëg jàngi àddina dara réeru leen xale yee mu yor ku gag mu gàggi la jigéen ñi da leen yar ci yarab soxna jaaratullaahi merom yu sell la kon am nga ndam ci sama yii de wéetu na nga ne kooku kan la ma naa la kii Cheikh baara Ndiaye la de nga ne fan la toj ma ne fee mu toj wax naa ko ump la moo tax ma ne Cheikh Bara Ndiaye te ma ñëw ci say jikko ni nga baaxe ak ni nga selle wax ko fi lu yàlla la sa yéwén gi ak ni nga fonke nit ñi ak sa yaatu gi sa waaye ak sa mbaax sa yar fi ràñña la ni nga mel na daaw ni nga mel na ren dafoo nekk ak kitar def loo ni weñ foofu wow nga wéy fu tooy ñu séntu la jubóog say mbokk fonk say dëkk rafetu doxin li waral ku xam la bëgg gëla danga nga xotti mbaax jàll mbaax di wéy sa mbaax gi ub na xel da nga xotti mbaax jàll mbaax di wéy sa mbaax gi ub na ni nga mel keneen ku ni mel amul buri yàlla far na la di nga jëm kanam ku la ginnaaw moo fewam xelam sa liggéey bu rëy bi nga sumu fii rek doy na ndam ku la sànni mooy ku la noonu mer lay dëkke saa su ne ku la soppi mbégte lay soxo moo tax ñu yow sopp ko jërëjëf jaraw lakke njaay jaata tenkiw jaaraama ndax te daa war tey ñëpp sant la jërëjëf jaraw lakke merci beaucoup tenkiw jaaraama ndax te daa war tey ñëpp sant ko na la yàlla aar te mu may la wér ak gudd fan na la yàlla aar te mu may la wér ak gudd fan te mu baalaak mbooloo mu baax nii nii mu boole la na la yàlla aar te mu may la wér ak gudd fan te mu bàyyi laak sa soppi bu baax mi ne bu boole wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu